naka yi tey mbaa yaa ngi si jàmm. waaw ñu ngi sant bu baax. d'accord euh, monsieur le ministre euh, invité woon naa la fii euh, weer yële jàll mënuma la ko ñàkk laajaat bala ñuy dugg ci ci li nga xamante ni moom mooy actualité bi naka. Ah ah. conversance libérale et patriotique seen taxawaay fan ngeen toll ak kuréel gi yéen a ngi def ay réunion yéen a ngi def ay ndaje yéen a ngi teg ay cellule politiquement fan la sa kuréel boobu toll. yan activité ngeen di def. waaw activisé moom ñaar la benn bi ci wàll xel ak xalaat xel ak xalaat bi mooy liñ ci mujj wax mooy jàpp nañu ñun ni Sénégal de yor fi ñetti téeméeri parti ëpp na bari na lool loolu nag dañ ko war a organiser moo tax ñu génne woon benn bataaxal wax ci ne ndax Senghor amul woon dëgg en 1976 bi muy tëral ni Sénégal ñeenti parti doy na fi ñun ñu jàpp ni famille politique bu ci nekk war nañ mën a àndaat doon benn ndax boo xoolee ni ñuy wax le camp libéral tey Macky Sall mi jiit réew mi ci la bokk mais Abdoulaye Wade mooy baayu libéralisme nga seet yeneen partie yu bëri muy parti Idrissa Seck muy parti euh, Pape Diop muy Souleymane Ndéné Ndiaye muy Modou Diagne Fada muy Omar Sarr muy Farba Senghor muy Pape Samba Mboup ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo ñëpp ci camp libéral boobu la ñu bokk kon ñu jàpp ni jot na tey ñooñu war a mën a waxtaan dajewaat àndaat ci benn parti boog du doon parti kenn maanaam du kenn kuy fekki sa morom waaye dañuy dajalowaat sos lu bees loo nga xam day nekk un grand parti libéral socialiste yi boo leen xoolee noonu la tëddee parti socialiste tey moo jur AFP moo jur parti bu mel ni grand parti bu mali Gakou moo jur URD bi Djibo Ka yoroon tey tey suñu xarit Diégane Sène yore ko ak yeneen parti yoo am ni ci biir Pastef lañ jógee ñooñu jàpp nañu ni jamono jot na mag ñi nga xam ne ñoo jiite parti yooyu ñu am xol bu rafet am yéene ci seeni rakk ak seeni doom ak seeni jarbaat fàtte lépp lu leen boole woon dajaloo waat pour am un grand parti socialiste boo xoolee également les marxistes léninistes moo ànd jël moo xam moo xam PIT moo xam LDMPT ak ñeneen ak ñeneen ñooñu ñëpp tamit war nañ mën a ànd beneen bi ci des mooy famille ak ñi nga xam ni Cheikh Anta Diop ñu gëm ak ñi gëm Mamadou Dia jàpp ne ñooñu aussi war nañ mën a dajaloo mu am quatre grandes formation politique loolu bokk na ci réflexion bi nga xam ni CLP génn na ko beneen bi ci des it mooy sur le terrain nekkuñu jamono campagne électorale waaye ñu ngi nekk ci jamono yi identifier les grands électeurs ak ay personnalités muy gone muy jigéen muy mag muy ndaw muy kilifa diine yoo nga xam ni war nañu seen cofeel ba tax ñun ñu war leen a jege waxtaan ak ñoom ba xam naka la ñuy mën a ànd ak ñoom liggéey donc ñaari axe yooyu daal CLP ci lay liggéey parce que jàpp nañ ni ci loolu lañ toll. mais yéen ngi ci mouvance présidentielle. waaw ñu ngi ci mouvance présidentielle ñu ngi ci la la grande alliance présidentielle. Euh, gis nañ ne amoon nga taxawaay bu mag ci élection présidentielle yi euh, CLP euh, ban cër lañ ko jox ci mouvance présidentielle. waaw xam nga nit booy ànd ak nit. dafa am looy ànd bon ñu boog loolu la ñu gëm mooy ay xalaat moo tax ñu ànd ak ñoom lan moo tax ñu ànd ak président Macky Sall mooy jàpp ni mën nañu àndandoo continuer liggéey bu rëy bi nga xam ne président Abdoulaye Wade yàlla na ko yàlla mooy gudd fan ak wér yaram tàmbali woon na ko ci Sénégal te ñun ñu nekk njabootam ñu jàpp ni war nañ mën a ànd ci loolu pour mu mën a jur njariñu Sénégal jàpp nañ ni loolu mooy politique ndax damay fàttali toujours ni 1975 ba ma ñëw di jënd carte PDS di bokk ci cellule PDS yaakaaruma ci woon ni dinaa ci jiite cellule kon su ma dem yàlla suturaal ma ba yóbbu ma ba ma bokk ci ñi nga xam ne dañu décider réew mi nga nekk ministre de la di toog conseil des ministres yore kaddu njiitu réew mi te du n'importe quel njiitu réew njiitu réew mu tudd Abdoulaye Wade xam ne niñ koy faral di waxee xelam xam-xamam xarañam du kenn di werante nit ñu di ko tooñ ba di ko wax l'africain le plus diplômé de Johannesburg à Casablanca kooku yore doom du lu ndaw te it bañ ko yoree jàpp nañ liggéey bañ fa liggéey tax na ba sénégalais yi defe ne tey man dong maa mas nekk porte parole présidence de la république kon liggéeyal réew mi moo ñu ci dugaloon firnde ji mooy tey takkuma ndoom tànku ministre di dem conseil des ministres waaye yow ak sa sa moroom di taskatu xabaar bu ngeen soxlaa dara da ngeen mooy wala laaj ma lu jëm ci xalaat réew loolu nag ku doy leneen du la doy maanaam nag lu jëm ci est-ce que jox nañ leen responsabilité est-ce que jox nañ leen ndombo tànk loolu du suñu cër ñun mus ñu ko laaj te duñ ko laaj nit lañ àndal di ko jàppale wax nañ leen li tax ñu di ko jàppale fu mu yaakaar ne war nañ ko fa mën a jàppale buñ ko joxe joxee ñu jàppale ko fa en attendant loolu yëpp nag. xalaat bu ñu am ci réew mi mais bëgg ngeen ndombo tànk non du lu ñuy bëgg ak lu ñuy bañ dama ne ko war ñay ba wàcc loo warati du la saf man kenn mënumaa jox lu ma yorul woon kenn mënu maa war lu ma gisul woon kenn mënu dugal fu ma dugal woon palais présidentiel la ma fudd la ma fa xam Macky Sall xamu ko fa kuy kilifa ci àddina bi ak koo mënti doon toog na ma yow réew mu nekk toog naa fa hôtel bu ne dugg naa fa aéroport bu ne wàcc naa fa kon dara safatuma ah, li ma saf mooy naka laay mën a def jàppale réew mi ba sama rakk sama jarbaat sama doom yi ñëw ci ñu ginnaaw bu ñëwee fekk réew mi nekk ci loxo yu set loxo yu sell loolu mooy li ma ñor tey. d'accord euh, monsieur le ministre euh, yow ay at ku lay dégg euh, mënuloo def benn émission presque te tuddoo ci li nga xamante ni moom mooy euh, retrouvaille euh, famille libérale yow dafa mel ni que ne suppu kànja bi nga xamante ni maanaam moo am ci parti politique yi wala doxin wi yow dafa mel ni loolu neexu la yow boo soñoon daal libéral yi dañuy jaar fee socialiste yi jaar fee gauche yi jaar fee. waaw mais waaw mais xam nga loolu mooy mooy mooy yoon ci wàllu politique mooy doon ci wàllu politique bëy day ànd ak bëy cere nag ànd ak nag du tere ñoom ñëpp nañu nekk ci gétt gi li mu bëgg a wax foofu mooy Sénégal dafa am nu muy doxee libéraux yi boo leen seetee tey téeméeri Sénégal yooyu jël juróom-ñaar fukki libéral la ñuy wote kon ñooñu war nañ mën a ànd tëral programme bu leer du tere nag ñeneen ñi nga xam ne dañu bokk ci réew mi nañ doon ay socialiste nañ doon ay communiste nañ doon leneen ak leneen te xam ne liggéey boobu di programme libéral tëral nañ ko ñoom ñu war ci mën a ànd te boo gisee réew mi dafa ay pàcc yu mu tëddee 1960 la Sénégal am indépendance président Senghor jiite woon réew mi jamono yooyu mu jiite réew mi def fi nag lu am solo parce que damay fàttali ni la plus grande œuvre du président Léopold Sédar Senghor mooy fexe ba Sénégal nekk une nation ma di leen xamal ni mbaa ma di ko fàttali ñenn ñi Senghor daan na joxe instruction ne Casamance bu ngeen fay affecté fonctionnaire jële ji ko Fuuta wala ngeen jële ko Siin wala Saalum bu ngeen di affecté fonctionnaire Fuuta jëlee leen ko Siin wula Saalum wala Casamance lam ca jublu mooy fexe ba famille sénégalaise boo dugg tey fekk fa séeréer fekk fa tukulóor fekk fa joolaa fekk fa mankaañ fekk fa jullit fekk fa catholique loolu réussir na ko tey ba Sénégal am loo nga xam ne benn réew amu ko donc liggéey na loolu créer ñu une république wàccub liggéey maanaam liggéeyam jeex président Abdou Diouf ñëw jox ñu une administration performante parce que boo seetloo jamonoy président Abdou Diouf poste de responsabilité boo làmb un administrateur civil nga fay fekk loolu tax Sénégal am administration bu dëgër mais fa la yem bi mu demee moo tax sax ay jamono am ñu doon wax ni Abdou Diouf gouverné wul Sénégal da koy administré bi mu ñëwee nag Abdoulaye Wade ñëw l'homme des grands projets lu ñu yaakaaroon ni mënta am Sénégal lu ñu yaakaaroon ne amul njariñ ci réew mi mu ubbi ko fi mu di de grands chantiers yoo nga xam tey ñëpp a ngi ci jariñu ña ca àndul ak ña ca àndul woon bi mu demee président Macky Sall ñëw continuer loolu di ko def ci anam yu ko Abdoulaye di ko defe wala di ko def ci anam yu ko ëpp. loolu mooy lan. loolu dafa ah, ah, wane ni da nga jàpp ne Macky def na lu ëpp li fi Abdoulaye defoon. ah absolument loolu kenn mënu ko werante nag. ah bon loolu moom du du du lu ah oui loolu du werante aussi. donc nit nit aussi ci côté ci côté ci côté santé ci côté éducation. xam nga du lu ñuy du lu ñuy gam-gam leen maanaam du concurrence loolu la Abdoulaye Wade doon ñaan. Ablaye da doon ñaan bu fi jógee doomam ji koy remplacer wala ki koy remplacer bokk ci njabootam def fi lu fi deful tey te loolu côté boo ko làmb da koy gis jëlal sur le plan des infrastructures routières Ablaye Wade moo fi def euh, moo fi commencé aéroport de Diass Macky Sall ñëw eggale ko ci anam ñu ko gisee moo fi def autoroute à péage ñaata kilomètres la Macky Sall ñëw non seulement eggale ko. mais def Ila Touba ak yeneen ak yeneen ak yeneen tey fi ñu toog di wax nii ñu ngi defar ay aéroport dans les régions yéene Abdoulaye Wade la woon moo taxoon moo lancé woon aéroport de Diass donc boo seeteel benn bu mu defoon fu mu tegoon benn tay Macky teg na fa ñaar wala ñett loolu la doon ñaan doon ñaan loolu moo taxoon mu wax poser ñaari acte yu am solo moom président Abdoulaye Wade moo ni en 2004 enfin avec Macky mes chantiers sortent de terre xaal bu nekk ñam naa ko waaye bu safee ni suukar musuma koo ñam moom moo dem ba suñu sang bu tedd ba Cheikh Saliou Mbacké yàlla nañu yàlla yokk euh, leeram te tas yu ci barkeem ni ko ñaana ñaanalal ma kii ndax dama bëgg ëllëg suma fi jógee mu remplacé ma kon la mu nu wut yàlla defal na ko ko kon nekkuñu ci di def concurrence entre Ablaye Wade ak Macky Sall dañu nekk ci de rafetlu loolu Ablaye Wade bëggoon yàlla wuyu ko ci ba Macky Sall def tey lu raw li nga xam moom def Ablaye defoon d'accord donc du affaire adversaire affaire complémentarité la. d'accord euh, jërëjëf euh, monsieur le ministre euh, Serigne Mbacké Ndiaye yow yaa jiite CLP mbokk yi moom la ñu invité ci rajo mi FM ñu doon wax ci li nga xamante ni moo jëm ci wàllum parti politique yeeg langue gi nga xamante ni moom moo ëmb libéro yi ak socialistes yi monsieur le ministre ñu wax ci li nga xamante ni maanaam moom mooy actualité. Euh, dafa am seen benn naataango bu tudd Ousmane Sonko nekk ci wàllum politique comme ni nga nekkee. sama sët sama sët la. waaw sa sët la. nekk ci mhm. làngu politique gi. Euh, ñu gis ne fan yi ñu génn dafa am benn xale bu jigéen bu ko tuumaal lu jëm ci wàllum siif. ak euh, wàllum menace de mort ginnaaw bi mu demee ci salon de massage boo xam ne wax nañ ne fala xale bu jigéen bi doon liggéeyee gis naa ci sa page Facebook nga bind si ci Ousmane Sonko maanaam di ko mel ni lu koy lu koy dëfal euh, mbir mi yow bi nga ko déggee ci presque mu ne a téll lan moo njëkk a nekk sa réaction ak lan nga xalaat. sama réaction mu njëkk mooy naqarlu ko ndax doomu aadama warul yéene doomu aadama musiba gis nga boo seetee ci mbaru làmb yi Modou bu amee xaalis Balla Gaye ko may dégguma de. dégg naa lu baax a baax. Modou bu amee xaalis Balla Gaye ko may parce que bu Modou Lo nekkoon làmb ji Balla Gaye nekk ci ñu xëccoo ñoom ñaar duñu am dara kon kenn ku nekk da nga war a yéene sa morom jàmm te man yàlla moo ma binde ginaar guy xeex sax mënu ma ko romb te ma ñaareel ba ma xam ni tuuma fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi tuuma nag am na wula amul xawma ci dara ñi ko xam mooy ñetteel ko xam ñaar ñi ko séq ak yàlla suñu borom ñi ko mën a leeral mooy tribunal te man wóolu naa justice su Sénégal beneen bi ci topp mooy li dal Ousmane Sonko jëmbul kenn amul benn doomu aadama boo nga xam ni mënoo dem ci àddina yàlla teg la ndog ñoo nga xam ni dañ naan waroon na ko man a bañ a dal waaye dal na ko kon loolu lépp su dajee ci boppam man li may man mooy massawu ko bañ ci dugal benn corrélation politique ni ma ko waxee léegi doomu aadama la ñoo mbokk réew mi ndaw la luy yëngatu ma yéene ko jàmm muy mbokk ci man parce que dama wax démb benn nit ni ko sama doom ji ma jural sama bopp ci sama geño lii daal Ousmane sonk bu ko daloon tey fu mu taxaw ñu ma gis ci wetam kon Ousmane sonk suma mbokk la sama sët la ndaw la ci Sénégal parce que maamam ni ma koy waxee sama cousine la man maa leen di jox sagaru njaam samay mbokk lañu kon tey am jafe-jafe du tax ma botte ko sànni du tax ma wax ko lu ñaaw du tax ma def ko lu ñaaw du tax ma yéeni ko lu bon li ci nekk nag mooy di ñaan ñëpp ànd ak dal am confiance ci justice sénégalaise parce que nag bu caaxaan jeexee dëgg des ñëpp am confiance ci justice sénégalaise awma confiance ci justice ay waxu caaxaan la parce que yow miy wax ak man su ma la tooñoon tey da ngay dem police wala gendarmerie du dëgg. waaw mais mais mais Ousmane tooñ mais mais monsieur le ministre. monsieur le ministre Ousmane Sonko dafa yàgg ŋàññi procureur di wax ne procureur APR la bu Macky Sall la yàgg na ŋàññi tamit justice su Sénégal. est-ce que yaakaar nga ni Ousmane Sonko bu nekkoon tey président de la République tribunal du am. tribunal day am. yaakaar nga ni procureur doo am. procureur day am. yaakaar nga ni ay juge du am. bu baax a baax. waaw kon nga xam ne loolu ay position politicienne la. fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi. damay fàttali toujours ni am na benn kilifa politique boo nga xam ni benn juge bu nekk ci réew mi damay bañ a tudd turam. moo géré dossier Barthélemy Diaz géré dossier Bamba Fall keroog bi mu bàyyee Barthélemy Diaz. mu ni enfin ndekete am na ay juge yu am fulla am fayda am fit ci réew mi mu placé Bamba Fall mandat dépôt mu ne neewoon naa leen juge yi amuñu fulla amuñu fayda te pourtant même juge bi moo bàyyi kii moo tëj kële kon dama ni amul Sénégal ku gëmul justice parce que boo gëmul woon justice buñ ñu la tooñee da ngay fajal sa bopp mais ku ñu tooñ da ngay dem police mbaa nga dem tribunal mbaa nga dem ci procureur wax yooyu nañ ko bàyyi li ñu war a bàyyi mooy ku nekk au ni lépp baax na boo nekk opposition ne dara baaxul léegi léegi monsieur le ministre euh, xam nga tey par exemple tey yéen ay euh, homme politique ngeen ay sénégalais ngeen ay citoyen ngeen mais tey yow si sa jàngat euh, ku mel ni Ousmane Sonko tey dem élection présidentielle jël troisième nga gis parti bi mu yore ñi nga xamante ni tey ñoo topp ci ginnaawam tey ku mel ni Ousmane Sonko tey est-ce que jàpp nga ne su amoon entourage dëgg dëgg dëgg dina dem ci genre salon de massage yooyu waa mais xam nga su amul woon entourage du am parrainage du réussir parrainage parce que man xam nga résultat élection yi passé nii du mooy li ëpp solo ci man ndax muy Ousmane Sonko mi jël troisième muy Idrissa mi jël deuxième kenn ku nekk ci ñoom bu fekkoon ne parrainage ba kalewul yeneen kandida yi man ngaa jël deuxième man ngaa jël troisième mais doo am vingt pour cent ak quinze pour cent loolu ma leer la kon seen mbérit mooy d'abord parrainage bi ñu am ba mën a dem ci élection du dëgg. waaw loolu mooy li nga xam ne mooy pour man li am solo maintenant est-ce que am na est-ce que am na entourage bu baax loolu man mënu ko juger mënu ko apprécier ndax xamuma. xamuma mais mais sa commentaire. mais mais waaw déglu ma eggale. waaw déglu ma eggale dégg naa léegi ma laaj. Mhm. dama ne entourage am. Mhm. mënu ma apprécier entourage bu baax la wula bu baaxul. xam nga damay faral di dégg parce que dal na ma man mi wax ak yow ñu naan président baax na waaye entourage am président baax na waaye ay ministre am mais entourage bi président moo leen tànn ministre yi président moo leen tànn kon su amee ku def faute du ki ñu tànn ki ko tànn la loolu mooy dëgg gi maintenant est-ce que boo amoon entourage dina dem foofu mu waroon foofu mu foofu ñu wax. doon na fa dem mais est-ce que bu waxtaanoon ak yow dina fa dem est-ce ak yow dina dem foofu sëñ Mbacke ministre. déedéet déedéet. effectivement. du fa loo koy conseillé waaw xam nga lu tax xam nga am na benn fu mu indiqué fu mu wax ni demoon na fa defi fa massage mu génn ñu jox ko facture deux cent mille xam nga dégg ngeen loolu ci ci communication loolu ba mu koy wax. ñi ma toogal nee naa leen lii du dëgg man dëgg fu ma fekk dama koy wax xam nga lu tax du dëgg salon booba xam naa ko man man dem naa fa def fa parcours boobu yëpp te ba ma génnee fayuma lu mat cent mille muy benn ñaareel ba ki moom salon ba xam naa ko ñetteel ba Ousmane Sonko c'est un député pris en charge par l'Assemblée nationale bu waroon a fay un million bu jëlee deuxième jox ko assemblée assemblée ñoo koy jël en charge kon loolu du lay. kon da nga jàpp ne waxul kon da nga jàpp ne dëgg ci côté boobu. ci côté boobu. waxul dëgg. en tout cas du ma ni waxul dëgg waaye li mu waxee li ma xam bokkul. d' accord mais tey par exemple tey euh, monsieur le ministre li may wax mooy comme par exemple tey yow euh, Serigne Mbacke Ndiaye soo mhm. nekkoon tey ci wetu Ousmane Sonko ngeen bokk mhm. langue politique mu ne la mankat wala nga nekk xaaritam ak mhm. dayo bi mu am ci politique mu jóg ne mhm. dafay dem ci salon de massage mu mhm. leer na la ne yow Serigne Mbacké Ndiaye mii ma yow xam nga ne mbirum politique kompolo dina ci yeex a jóge te tey état ni muy doxee képp ku ko bëgg a indil ay jafe-jafe su la manee gàllankoor dina la gàllankoor ndax yow nekkoon nga ci biir xolu état est-ce que soo jeg est que soo jegee woon yow Ousmane sonk ngeen laa nekk langue politique wala muy sa xarit wala benn jour mu fay dugg ngeen rombante mu ne la fii laa jëm est-ce que di nga ko bàyyi muy continuer ci salon boobu nga xam ne état war naa mën a xam fan la Sonko di teg tànkam bis bu yàlla sàkk nga xam ne leneen mën na ko cee fekk boobaa lan mooy nekk sa réaction ci loolu. d'abord du problème mu état xam fu muy dem nga fu mu dul dugg. kon dul salon de massage. salon de beauté la. xam nga salon de massage. boo feebaree. li ñuy wax kinésithérapeute. ñooñu dañu lay dañu koo jàng. dañu ko jàng xam naka la ñuy faje boo tëddee bu ñu la tiimee mën naa la jox exemple man ki may maase muy maasal bu tudd aji su ma tëddee sama su ma tëddee ni ko sama fii mooy metti ku dawalee baaramam dina ma ne neer bii moo def nangam yax bii moo def nangam soo ko defee nii ak dégg ay ndëyër parce que loolu la jàng mais wute na ak xara yoo xam dañoo nekk ci salon de massage boo ñëwee ñu jël ki diw ci sa kanam for forote forote forote ba nga jóg lors du massage foofu encore une fois du salon de massage salon de beauté la boo xoolee image yi ngay gis ci dugub bi wane yëpp salon de beauté lañ fa bind wane as ndaw photoom la ñu def ci buntu salon bi donc du salon de massage kon jàpp naa ne muy man muy sama morom kenn ku fa dem ci ñu erreur nga def erreur nag encore une fois mën na dal ku ne ba nga fay dem xëy na bu jàppoon ne looloo ko cay fekk xëy na du fa dem. waaw mais erreur la. waaw euh, monsieur ministre yow euh, maa ngi lay laaj loo xam ne yow euh, yow sànq yaa expliqué sànq que ne da nga nekkoon ak Abdoulaye Wade. mu mm-hmm. nekk président de la République. mu mm-hmm. nekk président ci biir président yi. li ma lay woo mm-hmm. laaj nii man jàpp naa ne yow yaa ma gën a xam xam nga ne. nguur dafay surveiller lépp loo xamante ni dafay xew ci réew. rawatina koo xamante ni tey ab opposant la boo xam ne yow dégg naa la nga ne mooy chef de l'opposition su ma juum su ma juum ah, tey waa léegi nag Serigne Mbacké Ndiaye yow leer na na la xam nga ne Ousmane Sonko fu mu dugg wax dëgg yàlla hmm. état am na ay ay ay ci moom loolu loolu war nga ko xam xam naa ko waaw ah, kay léegi nag te tey est-ce que loolu laa la expliqué ma ne la ku mel noonu tey état di wut ay xibaar ci yow hmm. est-ce que est-ce que normal na ngay dem ci bërëb yu mel noonu même bu passé même bu doon da nga feebar sax waroon nga am beneen solution xam nga li may laaj dama la ci tontu tontuwaat la ci tontuwaat la ci wax na la ni man gëm naa ne bu dem doon tey du fa dem xam nga loolu leeral na la ko maintenant est-ce que état day wur ay xibaar ki moom loolu wóoru la man wóoruma yan xabaar la état di wut ci moom xaw ma ko bu dee am na yow mi koy wax xamoo ko donc il faut que dossier bu amee ñu yamal exactement fi mu yem fan la yem mooy ñaari sénégalais sama ñaari doom. sa ñaari rak noonu laa leen di jàppee parce que damaa am ay doom yu jigéen yow boo amul doom yu jigéen am ngay nag wala ay rak nañu problème ak ku góor muy ñaari sénégalais wu ñun dañu leen war a yemale képp bàyyi tribunal mu def liggéeyam ba suñ ne kii moo tooñ en ce moment kenn ku nekk nag ka tooñ nga soog a mën a am loo koy wax mais amul keneen kuñ ci mën a tuumaal aujourd'hui ba taadu keneen parce que ñi wax état état état yëpp. mais Ousmane Sonko moom bi mu defee déclaration moom dafa tuumaal Macky Sall kane kane kane Macky Sall la. waaw mais xam nga bu nee moom la bu ne Macky Sall. maa ngi doon xaar mu jox mu firnde bi tax mu ni Macky Sall la loolu laa doon xaar de. ah yow nag boo ko amee. waaw boo amee bi nga jox ma ko. waaw léegi léegi tey euh, tey stratégiquement parlant tey. Euh, homme politique bu mel ni Ousmane Sonko tey moom mu yàgg joxar bi baaraamu tuuma kane état. Euh, waaw état daf koy état daf koy wutal ay ndëgg sërëx. waaw tey lu mel nii su amee euh, est-ce que yow da nga jàpp ne dafa dafa bëgg a mbub mbubboo nguur dafa bëgg a mbubboo nguur euh, lan moo ci sa analyse boo ko doon def tey sa analyse politique. loolu moom bu fekkee ni dossier nekk egg na ci jugement à partir de moment amatul benn argument bu nit di am te di ko nëbb kenn amatul looy denc kon bu fekkee ne am na firnde nii nguur gi def ci dugg mu gaaw mu yeex dina ko joxe bis bu joxee nag ni lii mooy firnde ji à partir de ce kenn ku nekk man ci prononcé wu mais pour man la mu wax aw ma firnde ji donc mënu ma ci prononcé ci loolu. d'accord léegi euh, monsieur le ministre. Euh, waaw Ousmane Sonko ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ñoom dañu jàpp ne. Euh, <coughs> Macky Sall ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ñoo nekk ci euh, ñoo nekk ci ginnaaw mbir mi. Euh, waaw yaa ngi noonu wax ne ñaari sénégalais yoo xamante ni ñoom la mbir mi dal ci seen kaw. mbir mi est-ce que jàppoo ne tey politique daf ci dugg ba nga xamante ni tey ñu bari seen xel mën na ci tey. xam nga politique daf ci dugg nga wax am na ñeneen ñu koy wax. waaye man dañ maa waxagul ana politique bi fu mu dugg parce que tey Ousmane Sonko wax nga ko léegi man wax naa ko fa mu demoon nii ba loolu am fa bu doon tey la du fa delluwaat leer na ma mais est-ce que ba mu fay dem Macky Sall moo ko fa yóbbu jàpp ma ni moo ko fa yóbbu kon bu fekkee ni bëgg na ñi ma politique am na ci man de bëggoon naa wax dëgg yàlla nit man ma jox firnde ni ma politique daf ci ànd ndax poste boobu ngay wax ni bind naa ko Ousmane Sonko di ko wax ni courage moom petit fils wax naa ko ci ni ko man damay combattre nit su ma lay combattre politiquement argument politique dong lay utiliser te jàpp naa ni ñëpp loolu la ñu war a def maintenant ban argument la ma nit mën a jox pour ni ma lii moo tax ñu ne politique mais joxuloo ma ko keneen joxuma ko ma ku ma ko jox ma mën ci wax. waaw waa léegi. Euh, ah ah. xam nga <laughs> monsieur ministre tey mbir mi euh, man na bañ a am complot bu état def. ci Ousmane Sonko. waaw waaye ñun ni ñu gisee ñun suñu Sénégal ak suñu politique Sénégal mm-hmm. mën nañu wax ne politique ci àdduna bi mm-hmm. ki nga xamante ni tey mooy sa adversaire mm-hmm. bu defee benn njuumte parfois euh, adversaire bi dina ko jéem a exploité moo xam da koy exploité ci ay manipulation moo xam daf koy exploité ci beneen anam boo xam ne ñu bari mën nañoo décourager ci yow. mais gëw ma ne est-ce que tey nit mën na gëm ne Ousmane Sonko dina def njuumte ci politique te état bu Sénégal mën a am lu ci exploité mu ko su néew te ñoom du ñu mayante dara est-ce que xel mënul jàpp loolu. waaw xam nga ni nga waxee question bi dafa mel ni donc Ousmane Sonko dafa def njuumte état bi exploité ko. du dëgg noonu nga waxee. waaw bu dee ni loolu mu am. kon nangu nañ ni njuumte bi Ousmane Sonko moo ko def loolu amul ci werante maintenant non man dem man dem ci man dem ci salon bi rek njuumte laa ko jàppee voilà d'accord naa ak yow defa am ñaari élément benn élément boobu li ñu affirmatif loo wax ne lu am la te ñëpp gis ne aussi lu am la ak lenn loo nga xam ne dañuy laajte am na wula amul kon li ñuy laajte am na wula amul maanaam état dugal na ci loxo wula dugalu ci loxo loolu bu fekkee ne enquête am na ba enquête bi jeex ñu gis ku nekk la ca di responsabilité bu boobaa ñu xam ku ci dugal sa loxo ak ku ci dugalul sa loxo mais encore une fois man damay bëgg su may wax dara mu doon loo nga xam ne nit duma ci jëppi ndax day doon lu ma wóor mais fi ma toog nii di wax gisuma benn firnde bu war a tax ma ni diw dugal na ci loxoom gisuma ko kenn waxuma ko it bis bu ñu la ko waxee nag ma mën ci jël position. d'accord mais pour le moment kenn joxuma argument boobu. Euh, euh, li tax etaa li tax ñaan ak Macky Sall euh, si ay xibaar ñu jox leen ordre leen bu leen ci communiqué ban jàngat moo lan moo sa xalaat ci loolu. xanaa bañ ku leen tuumaal rek xam nga liñ naan ku ñuy jiñ ba ci guddi doo soccoo yee li liir loolu rek la bëgguñu ku leen ci tudd seget ni waxuñu ci ñu tudd leen si ci waxoon nu muy mel xam nga waxuñu ci ñoom. waaw Macky Sall waxu ci ku ko waxu ci ñu tuumaal leen ci. waaw kon njàlbeen bu ñëwoon sëbax di ci wax kon lu ñu kon lu ñu lu muy mel kon dafa mel ni ci côté boobu les faits jox nañu raison à Macky Sall moom mii ay nitam suñu yoon nekku ci diggante ñaari Sénégal nañu leen seetaan ak tribunal. d'accord léegi kon bu ci waxoon musiba am. léegi Serigne Mbacké Ndiaye euh, yow euh, da nga yoroon kàddu maître Abdoulaye waat te ñun liñ jàpp. Mhm. liñ jàpp mooy mën ngaa mhm. waxal ay président mën ngaa waxal ay yor kàddu ay ministre ba mhm. pare. amaana ngay taqale ci mbirum communication mais ab laay Wade moom ni ko nit ñi xamee euh, képp kum ne yow yaa yor sama kàddu am na fu mu ko teg tey déclaration bi Sonko def bi njëkk a def waaw est que yow gis nga ne def na ci ay erreur ak tey bi mu njëkk a def ci guddi gi waaw bi mu njëkk def ci guddi gi waaw yan erreur nga jàpp moom la ci Ousmane ko def en fait xëy na du ma ko tuddee erreur ndax moom la mu wax am damay dellusiwaat ci loolu rek Euh, kii wax moo xam li tax muy wax ak argument yi tax mais man personnellement su ma nekkoon ci place am am na yoo nga xam ne duma ci yegg bi ci jëkk bi ci jëkk mooy su may wax ak samay nit ci dal laa leen di woo parce que dossier tribunal amul lu koy régler lu dul dal xuloo du ko régler xeex du ko régler sànni xeer du ko régler te lii may wax nii na sa xel demaat ci dossier Karim Wade loolu laa doon wax mes amis mais frères et sœurs PDS à l'époque ni leen dal mooy régler dossier waaye xeex ak sànni xeer du ko régler au contraire da ngay yokk joote te li ma wax ji kon am na ndax gis nga ci presse tey ñu wax ni dossier wu ñi nga xam ne les dix neuf yi ñu jàppoon dix neuf je pense la. vingt te ñu placé leen sous vingt. Mhm. te ñu placé leen sous mandat le procureur criminalise le dossier noonu laa ko gisee ndax man comme nekkuma dakaar presse bi laa jot moom laay jàng loolu laa ci. effectivement loolu la. alors bu ñu nee def ko criminaliser nee nañu dañu def insurrection kon insurrection boobu mooy maanaam jóg soulèvement euh, jalgati pour jéem a jaxase réew mi pour jéem a taal réew mi te loolu jàpp naa ni du loo nga xam ne lu mën a régler problème mu Ousmane Sonko la. loolu moo tax ma ni la. loolu bokk na ci li ma jàpp ni man en tout cas su ma nekkul place am di ko wax di wax du ma waxee noonu loolu benn la ci ñaareel ba mooy le fait que dès le départ tak nga politiser dossier tudd ci ay nit parce que man dama bëgg soo tuddee nit nga mën a jox firnde yàlla seet na ni ñi mu tudd ni ñoom ñoo politiser dossier bi ñoo monter affaire bi bu ci joxe woon ay firnde gis naa sénégalais yu baree bare bare baree bare yoo xam ni kon tey ñu ngi wu ci ginnaawam waaye nag boo mbaam mi dee na mbaam mi dee na da nga naan mbaam mi tool bàyyi du la dee ay nit ñoom lay kumpuloo rek te joxe woo firnde ne ay nit moo lay kumpuloo dañu la la jàppale donc ñaari yooyu laa jàpp ni man su ma doon communiquer ci question boobu du ma ci wax. daa accord mais mais est tey jàppoo ne kon Ousmane Sonko waroon na def benn sortie jubbantiwaat communication mu njëkk ba rawatina woo ay militant am ci dal. waaw mën na mën na je pense que loolu dina doon lu baax woo ay militant ci dal te su ma amoon lu ma koy conseillé tey xam nga wax naa ci post bi ni booba ma publié woon ni jéem naa ko jot jotumu ko mais su doon ni jot naa ko it loola dina bokk ci li nga xam ne dinaa ko ko wax maanaam jéem a wax moom ni ko jéem a wax ak moom jéem a wax ak moom pour mu lancer un appel à ses partisans ñu ànd ak dal parce que encore une fois dal lu mu réglé wul leneen. du ko réglé mais moom dafa jàpp nag ne Macky Sall rapport de force la xam. waaw xam nga bu dee ni loolu la gëm na ci dem waaye moom affaire bi du moom ak Macky Sall encore une fois xam nga du moom ak Macky Sall waa da moom la ak justice waaw d' accord mais tamit waaw mais justice bi koy woolu lu tax gendarmerie euh, Serigne Mbacké Ndiaye gendarmerie bi di ko di ko convoqué te waa gendarmerie ñoom leer na leen ne Ousmane Sonko euh, député la loolu euh, lan moo ci sa xalaat xalaat bu simple la xam nga li tax muy xalaat bu simple am na sax benn waxtaan bu am ci CEDEAO li ma wóoratul mooy est-ce que CEDEAO jël na arrêté boobu oui ou mais boo remonté da ngay viol la ñu wax xam nga gis nga avocat mi ñu naan ñu ngi réclamer ay PV ñu ngi réclamer lii ak lii ak lii mais avocat yi bu ñu àndoon ak moom dem à l' enquête préliminaire kon lépp ci seen kaw lay xewe amul lenn lu ñuy réclamer mais li ci am solo mooy comme nee na woon du wuy ji te convoqué tey te levé wuñu son immunité parlementaire encore une fois choix la décision la dama koy respecté ñi nga xam ne ñoo ko doon woo également mel na ne ñu ngi respecté loolu mu bëgg mooy engagé wu dans la voie pour lever son immunité parlementaire parce que li may wax toujours un homme politique ragalul que tribunal condamné ko un politique li muy ragal mooy opinion bi condamné ko ñu dem ba ci cëppaandaw ja opinion bi gis ni yaa tooñ loolu la un homme politique ragal mais un homme politique ragalul que tribunal di ko. daaw mais mais mais gendarmerie gi ko convoqué tamit ñenn ñi jàpp nañ ne moo waral euh, moo waral pëccëxoo gi ci am ndax euh, policiers yi après ñoo dem ci bundu kër Ousmane Sonko ba jàppante am est-ce que tey bu ñu ko convoqué wutoon wala bu ñu ko convo bu ñu ko convoqué woon tey euh, demul police demu fa dara demu fa est-ce que li xew dina xew. xam kon du xew mais xam nga lu indi loolu du convocation bi manque de communication moo ko indi te damay faral di wax ni. ay nit boo leen di diriger da ngay wax ak ñoom xam nga police am nañu am nañu porte parole ba ñu xëyee ay policier di dem kër Ousmane Sonko bu leeroon ay nitam nit ñëwuñu pour jël si ko kon li xew du xew. mais xëy na ñoom yaakaar. mais mais police tamit est-ce que warul communiquer ci loolu. moom laa la wax dama ne war na ci communiquer xam nga àddina dafay dox léegi da ngay gis même événement su amee dans tous les pays du monde surtout en Europe. da ngay gis le procureur day rassembler ay éléments génn def une communication pour informer l'opinion kon bu fekkoon ni police bi defoon nañ communication bu tax ba waa kër Sonko xam ni police bii ñëw ko jël si wuñu Sonko mais xëy na kaaraangeem moo tax ñu fa ñëw wala rassemblement bu fa am te ñu tere ko moo tax ñu di fa ñëw kon jàpp naa ne li am du am mais à à ce niveau là du du yéene bu kenn amoon pour def lu dul noonu mais dama jàpp ni manque de communication la. d'accord léegi euh, li nga xamante ni tey mooy ay procès verbaux yi nga xam ne dégg nga yenn ci ay liir euh, lire ko euh, ki nga xam ne moomam salon bi peut-être jombul dégg nga ko mu wax. yooyu yëpp kii mooy. est-ce que nga ne kan dégg naa mu wax. ki moom salon bi moom wax na. waaw am na ay procès verbaux yoo xam ne yenn ci ay journaliste wax lire nañu ko. waaw est-ce que yow loolu lépp am na loo si jàpp ba koy bàyyi xel. jàpp naa ci dara rëccu ma ci dara ump ma ci waaye du ma wax. amoo ci benn commentaire ci loolu. déedéet sama jàngatu bopp laa ciy def parce que jàpp naa ni. waaw lan moo si sa jàngatu bopp lan moo si sa jàngatu bopp non attends non moom laa dama ni la sama jàngatu bopp laa ciy def ndax je suis un homme lépp luy xew ci réew mi intéressé na ma waaye du lu ma xam nag wax ko ci rajo <laughs> kon loolu moom maandu ci laay def. d' accord léegi euh, assemblée nationale euh, gi nga xamante ni tey ñoom euh, xàll nañu aw yoon ginnaaw bi leen ministre la justice saisiré ngir ñu dindi malaanu kiiraayu ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko. Mhm. ba mu yàgg ñu ne sax procureur jël na dossier bi jébal ko juge d' bi mais plainte contre x loolu ñenn ñi jàpp nañ ne plainte contre x nan la mën a xewee foofu te ndaw si moom moo porte plainte bind ci turu Ousmane Sonko. waaw xam nga loolu moom boo ko laajee procureur mu wax la ko boo ko laajee le juge d'instruction xëy na mu wax la ko mais dama bëgg mbir mu xew kenn ku nekk na ci yam ci liy cëram bu dee ne dañuy wut defar mais xam nga ñun suñu problème mooy jël ko sax ci beneen exemple jëlal rek même dans le domaine du football man dama bëgg Sénégal dañu am entraîneur bu tudd Aliou waaye man maay def sélection à la place de Aliou man maay indi système de jeu à la place de Aliou Cissé def ay remplaçant à la place de Aliou Cissé te damay wax toujours ni dossier de justice ku ko tiimul rek boo ci waxee ñi me yàlla tax nga wax ko ku ko tiimul ñi me yàlla moo tax nga wax. <laughs> d'accord léegi léegi léegi monsieur le ministre. te dama lay euh, wax xam nga dama lay wax jox benn exemple. waaw am na tur du ma tudd mais am na benn dossier boo nga xam ni. daf ma métti ñor ma lool ba ma yaakaar ni kooku dañ ko ëpp doole niiwal ko doole moo tax ñu tëj ko ma di ko topp di ko topp di ko topp di ko topp ba am lu ma gis ci dossier bi benn phrase bon ci làmmiñam la génnee moo tax mu dem kaso moo tax il faut très prudent ci dossier de justice tant que tiimuloo ko nekk un juriste ndax baat bu ne dafa am lu mu tekki benn virgule dafa am lu muy tekki benn point dafa am lu muy tekki man nag dossier de justice bu ma tiimul gisuma ko dama ciy maandu. d'accord keneen ci waxee da ngaa dëgër fi rek di ci wax. d'accord léegi euh, dossier bi ba tey euh, monsieur le ministre ñoo ngi siy tudd benn xale bu góor boo xamante ni tey euh, papam mu ndaw ci biir benn bokk yaakaar la nekk. est-ce que kan mooy papaam bu ndaw. Maodo Malick mbay bu gëm sa bopp. moom moo génn communiqué. ne Sidi Ahmed Mbaye papaam bu ndaw laa. mais waaw. mais euh, moom wax na ne yëgul ne yë mbir mi yëgu ci dara. mais waaw. est-ce que tamit comme si biir benn bokk yaakaar la nekk euh, ñu euh, ne moo demoon jëli ndaw si moom tamit mu dëggal loolu est-ce que ñenn ñi tamit mënuñoo jàpp ne dafa am lu nekk ci ginnaaw. yow sa biir famille yow yow mi wax ak man sa biir famille wala man sama biir famille man mi wax ak yow bu fa nit sàccee mbaa mu rey fa nit est-ce que dafa engagé famille bi lu ci seen yoon. yoonu kenn nekku ci parce que ki def kooku ngay wax noonu jàpp naa ni c'est un du du mineur magum jëmm am nit gis naa mu jàng ni kii sama xarit la woon bu yàgg waaw nit bu la ne kii sama xarit la woon yow sa rakk ak say jarabaat ak say nijaay seeni xarit da nga leen a xam lu ñu séq nit ñi danga leen a xam il faut que ñu bàyyi ñu xam ni nit ku nekk da nga am sa responsabilité personnel man dama am ay doom am ay jarbaat keneen ak keneen am ko la ñuy wax wala la ñuy def ku ci tudd tooñ nga ma parce que maa ngi nii tukki nekk ci àll bi samay doom a ngay liggéeyi ñée seen kër ñée feneen ak feneen la ñuy def na ku ma bëgg a collé seen responsabilité da nga may tooñ. d' accord mais léegi euh, monsieur le ministre léegi yow euh, sànq yaa ko junj kane ñi nga xamante ni tey ñoom la ñu jàpp ne ay pro Ousmane Sonko lañ te ñu def leen mandat dépôt ni ki démb. tuuma yi ñu leen di toppee mooy salfaañam réew bëgg taalum réew euh, yàq alalu euh, jaambur yàq alalu euh, alalu état ba pare tamit fitnaal ñi nga xamante ni ay takk der est-ce que yow jàppoo ne Ousmane Sonko tey yow ci sa xalaat ak ci sa analyse jàppoo ne mën naa am yeneen tuuma yu ñu teg si moom yoo xam ne sax mën naa jéggi mbirum viol. ah bien sûr que mën na am loolu koy moom ku nekk xam na ni mën na am moo tax ma wax la ni la. ba muy def déclaration man su ma nekkoon place am du ma ko waxee noonu mais la tax moo waxee ko noonu nag xaw ma ko donc mënuma ko critiquer li ma mën a waxoon man sama jëmmi bopp su ma doon wax du ma waxee parce que tey Ousmane Sonko même buñ ko bàyyi woon mu dem yoonam tant mi ngi am kenn ku bokk ci moom ku nekk ci kaso bi wula nga nekk hôpital fitna la koy indil moom te nag lijjanti benn nit moo gën lijjanti ñaar fukki nit donc loolu jàpp naa ne vraiment pour man noonu laa ko gis. d' accord jërëjëf euh, monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye léegi tey euh, waxtu wi ma nga ñuy waaj dab ci rajo Rewmi FM seen émission pencum réew mi léegi ñu wax ci benn euh, ñaari laaj rek bi si njëkk mooy déclaration patrimoine bu Idrissa Seck mu fës ci presse bi lan moo ci sa commentaire sa xalaat. waaw xam nga bu fekkee ne déclaration patrimoine dafa war a nekk lu secret bu fësee ci presse bi jaaduwul kon war nañ mën a gëstu pour xam ku ko fësal ci presse bi. mais mais dans le fond dans le fond laa wax de xam nga loolu mooy li xew actuellement nii man dans le fond pour man déclaration patrimoine sax du lu war a nekk secret dañu waroon di def ni déclaration patrimoine ñëpp dañuy xam ne lii la du dégg nga bërki démboo jaay Poutine ñu tuumaal ko benn kër guñ ne moo ko moom ba benn nit génn di da ngeen di tuumaal Poutine moom ko kër gi kon ku dem ba bëgg a jiite nit ñi boo defee déclaration patrimoine maanaam loi bi war na fexe ni la déclaration de patrimoine doit être publique boo fay génne aussi ngat ñu defaat une déclaration publique mais ci état bi Sénégal di doxee ni à l'heure actuelle génne ko jaaduwul kon bu dee ni génne nañ ko war nañ xam kan moo ko génne ñu sanctionné ko d' accord euh, jërëjëf euh, monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye laaj bu mujj bi mooy lu jëm ci wàllum euh, état bu Sénégal fan yi ñu ñu génn dégg nañ président Macky Sall wax ci li nga xam ne moom mooy réseaux sociaux yi muy xalaat ne war nañ cee mën a indi ak jubbanti ci wàllum yoon ndax rëq-rëq yi nga xamante ni moom lañ ciy faral di nemmeeku yow ndax loolu jàpp nga ne lu baax la lu yanu maanaa la ak tamit est ce que jàpp nga ne mën naa yomb. waaw benn moo yomb moom du ko def mais lu mën a nekk la mais ki nga xam ne day yore ordinateur am mbaa mu yore téléphone am di la wax loo xam bu jàkkaarloo woon rek ñemewu la ko wax wala bu ko waxee ba pare turu keneen la ci dugal du ci dugal turam loola jàpp naa ne lu ñu war a réglementé la ndax toog wax ab sëriñ wax kilifa loo nga xam ni mën na taal am réew je pense que loolu responsabilité président mooy fexe réglementé ko tout en respectant la liberté d'expression des Sénégalais il faudrait que loolu ñu mën ko réglementer ba képp parce que nit ki waxal lu la neex mais assumer sa responsabilité yow xam nga sa rajo nga nekk di ma woo may wuyu kon xam nga ni man diw mi may waxeek ak yow lu ma fi wax sama responsabilité la donc nañu fexe ba kuy dugg dans les réseaux sociaux lépp loo wax mu nekk sa responsabilité ñu mën a identifier loolu jotewul dara ak tere nit ki ñu wax nit kenn terewu leen ñu wax waaye ku wax nag la ngay wax na ko assumer loolu mooy wax bi d' accord jërëjëf euh, monsieur le ministre Serigne Mbacké korona coronavirus moom xam naa ne euh, yaa ngi jël mesure barrière yi mais bàyyeeku dafa mel ni am na ci askan wi de wala nguur gee bàyyeeku. ñëpp a bàyyeeku te jaaduwul. <laughs> nguur gi nguur gi ci la te jaaduwul. nguur gi nguur gee ko jëkkee. ah nguur gee ko ah bien sûr que ko jëkkee nguur gee ko jëkkee. ah moo ko njëkkee. kon kay li fi am solo fi mu ne xam nga mooy lan. ah nañu continuer gën a góorgóorlu dellu ca la woon nañu fexe ba vaccin bi gaaw a ñëw te ma leen di ñaan yéen presse bi képp koo nga xam ne dafa ñëwati di wax ci vaccin bi yoonam nekku ci xamu ci dara bu leen ko jox seeni micro muy wax loo nga xam ne day tas am réew parce que yow tey boo demoon hôpital di di di faju ji nga ñëw médecin bi bindal la ordinance nga dem pharmacie ñu jox la garab yi da ngay ñëw ni médecin bi garab bi ba ñëw fu mu jógee ku ko defar. déedéet da nga koy laaj alors pourquoi ñu bëgg a diaboliser un vaccin bu ñu xamul dara te ña koy wax xamuñ ci dara wula ña ci xam di ci wax ay nit la ñu yoo nga xam ni bëggoon nañu ay responsabilité mais est-ce que mais mais mais ma wax la déglu ma dafa am ñoo nga xam ni bëggoon nañu ay responsabilité ci wàllu pandémie bi te joxuñu leen ko lu leer laale lay wax ñooñu seen intérêt personnel la am na ñoo nga xam ni yoroon nañu ay responsabilité ñu dénk leen ay service ñu jalgati fa IGE topp leen jàpp leen forcé leen ba ñu remboursé ñaar ñoo ñooñu ñuy wër ci rajo yi di yàq li nga xam ne moom la liggéey bi ñuy def te da dafa war a dàkk. jërëjëf monsieur le ministre ñoo lay sant di la gërëm. jërëjëf maa ngi jégalu na ku fi dégluwoon nag xam nga baal ma ko. jërëjëf euh, ñu koy sant bu baax di ko gërëm mbokki loolu moo nekkoon seen émission pencum réew mi tey ci samedi ji ñu invité woon ci Serigne Mbacké Ndiaye mi jiite mm. euh, président de la convergence libérale et euh, patriotique Abdou Khadre sekk moo nekkoon ci micro bi du Diaw jàll ci wàllu xarala gi ñu leen di jox dig daje samedi bii di ñëw incha allah ci beneen jataay